Marème Sall ndax doom la ci père Ndiouga Thiam loolu dinañ ko gis si suñu chronique bu bés bi donc da ngeen ñuy topp ba vidéo bi jeex gannaaw bi épisode 28 bu bété bété djéxé donc amna question yu bari yo xamante il y' a énormément de questions yu posé wu ci entre Marème Sall ak Père Ndiouga Thiam mais la laata ñu ci ñëw dañu dem ci page publicitaire bi té ñëwaat ngeen sétane Serigne Saliou Mbacké ku Yalla may ci walum ñaan muy ko am jafé jafé ci néewu sé muy ngoré et tout. da nga am jafé jafé sa wàllu aduna chat daf laa sonal wala lamiñ dawal séti Serigne Saliou Mbacké bi sët ci Serigne Sidi Mokhtar Mbacké sét gu leer nañ li si xaar. wax la sa ëllëg ba nga xam ne gis na la dawal seeti sëriñ Saalihu Mbàkke façon ndig yi boo xamante ne koo xamante ne saawara dafa nooy nga gaaw a daanu booy say jigéen di gaaw a àgg dawal seeti ko ndaxte fas koogu noonu maamam ju baax gi di sëriñ Sidi Moxtaar Mbàkke moom moo ko joxoon moo ko baaxe woon jigéen boo xamante ne dangaa taw am doom dawal seeti ki nga xamante ne mooy eh, Serigne Saliou Mbacké koo xamante ne da lijjanti ay këyit mu jafe muy visa nga bëgg dem bitim réew wala nga nekk bitim réew taw ñibbisi demal seeti Serigne Saliou Mbacké ngir jokkoo ak moom woo ko ci numéro bi 77 385 92 00 wala 78 124 20 45 ak Serigne Saliou Mbacké aju yëpp ay faju Épisode 28, euh, BTBT. Donc euh, aujourd'hui, on a posé énormément de questions entre euh, Père Ndjougatiam et, et Marem Sall, Nyom entre li nga xamante ne moom la ñuy xeex euh, kenn ku ne di xeex di défendre sa wàll euh, dret mooy wàllu waaso aujourd'hui euh, li ñu posé wu mooy ñoom ñaar à la fin de la série nan lañ ko nar a gisee ndax ñoom ñaar dañoo bokk dret et ndax à la la série ndax dañ naan diw kenn ki may na mas naa may moroomam dretam wala mas naa may kenn ci famem dret donc loolu dinañ ko découvrir ci série bi mais li ñu gën a yëm mooy on a vu Père Ndiouga jaawale ki nga xamante ne mooy Nogay ak Juma Thiam am ndax ñoom ñaar seex lañ am déet man de je suis certain sûr ne ñoom ñaar seex donc ñun ñu ngi xaar ci commentaire yi Marème moom du mas a bëgg ci théâtre bi parce que moom euh, problème moom ci boppam moom boppam la boppam mooy problème am donc bu doon dafa euh, jàmmal boppam rek dina àdduna dina neex mais. Euh, on a vu que ne euh, elle souffre quand même ci théâtre bi parce que li mu bëgg a défendre dafa métti ci moom li ko yaayam dugal nekku loo xamante ne lu ko neex la di sey koo xamante ne bi goo ko donc euh, moo ngo wéna like